هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله سما برم لا لا يستوي دتولو القاعدون ويتوغي بين دون خير من المؤمنين في way gëm دون yi wal mujahiduna ak ñi nango jihad fi sabilillah ci yalla bi am walim ñuy joxe sen alal wa am fusi ñuy joxe sen bop waaw duñ tolloo ci payre khayra uli dara lurut ñi nga xamne dañu am ngant abdullah ibn ummi maktum ci la bok borom bi tabarak wa taala neena suma ote ci yalla ñi nango wuyu joxe sen alal ah ñooñu duñ tollo ki nga xamne nangu ra joxe alalam de su may ne na ngeen dimbalante ki nangoo génne alalam di dimbalante ak ñu ñak ñi koku du tollo ki nga xamne mu ngi denc alalam nangu ra génne de ah, duñ mëna tollo tolloo de ki def ak ki deful mëna ñoo tollo xana lenn ngant ki bëgg def sama amul lum def wala mu bëgg dem dem man ta dem kooku yàlla mën na koo fay ndax ngantam waye yow mi amul ngant do meuna tollo ñi nga xamne dañoo dañoo nangoo jibal seen bopp yalla di genn seen alal diko, dépasser ci yoonu yalla diko dépasser ci ñooñ yalla yenent bi sallallahu alaihi wasallam neena na inna bil madinati aqwaman ma sirtum min masirin wala qata'tum min waadin ila wa hum maakum fihi قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم الحصر حديث بوير يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا مدينة غلا ngeen joge yeen ñi xex yeen ñi xex amna ñu fa nekk fu ngeen dox ci xàll bi di dugg ci xunt yi di wàcc di éeg ci mountain yi ñi ngi ànd ak ci pay maanaam lu leen yàlla fay fay leen ko ñu ne ko ayoo mi yàlla yónni ñoom ñi toog ci Medina ñun ñi nekk ci àll bi di xeexal yàlla luñ am ñoom ñi am ko mu ne waaw parce que ngànt leen fa téye parce que ngànt leen fa téye gis nga yow mi doon dem ci jumaa ji di julli ji saxal ko keroo bu tànk yi bañee mënatulaa dem yàlla dana uutal malaayika mu lay demal ñi lay jox sa salaire ndax ngànta tax gis nga yow mi doon yëkkati sa alal di dépenser ci yoonu yàlla keroo boo ko amatul yàlla dana la wutal malaayka mu koy joxe parce que ngànta tax yow mi doon yëngatu ci lu baax demet yonent bi dem na ba ne yow mi doon naafale ci guddi bis ñëw nga sonn si misa yére yi teg dal di tëdd nelaw yàlla ebal malaayka mu sol yére yi ñëw di naafale koy fayeew man naafale eh, eh, malaayka moom soxlawu wax ñoom laa yaxsuna allaha maa amaru wa yafaluna maa yumaru jullit dafa oo dara am du kasaar xanaa ñàkkaa xam sama borom na laa yastawi du tolloo du ximo alxaayidoona way toog yi minal muminina ci way gëm yi yàlla ñi nga xam ne dañoo toog ci kër yi dégg nga duñ tolloo ak ñan wal mujaahidoona way way nangoo jihaad ñi fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi am waalim ñiy joxe seen alal waan fu yim ñi boole ci seen bopp duñ tolloo mukk xayra uli darar ndere ñi nga xam ne dañoo am ngant ñu am ngant génn nañ leen ndax duwul seen saw yàllaa ngóog pays yàlla bi dafay jaay inna allaha astara min almuminin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yàlla dafay jaay pays yàlla bi pour nga dugg dangay jël li nga am yépp may sa bopp ak sa alal ji nga joxe ko waxtu woo ko joxee rek ñi fay la pays yàlla waaw noonu la ko alxuraan saxale dangay joxe li nga am te li nga am sa bopp ci gën moom la ci gënal soo joxee sa bopp muy am fusuum nga joxe am waal bi muy alal muy alal ji su boobaa paye yàlla bi lañ lay fayee am na solo suma borom ne faddal la gënal na faddal hëppal na allahu yàlla almujaahidiina woy nangoo jihaad ñi bi amwaalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bopp gënal na leen alal dina ci way toog yi amul ngant dégg nga wala way toog yi ngeen ngant kay way toog yi ngeen ngant daraja tan daraja ndax imuwuñ waaye nag wakkul lan képp ci ñoom ñaari mbooloo waxaada dencal na allahu yàlla husna aljana pay bu rafet kon yàlla nee na ñetti daraja lañ daraja ji gën a kowe mooy ñi joxe seen bopp joxe seen alal nangoo ànd ak yonentu yàlla maama dem xeex bu dee ci jamono tey bi la mooy ñi nangoo joxe seen bopp joxe seen alal ci yoonu yàlla wuyu ji yàlla ànd ak yàlla bugg yàlla bugg ñooñ yàlla bugg alquran bugg ñooñ alquran ñooñu ñoo nekk ci daraja ju kawe ñi nga xam ne ñoo ci topp mooy ñi nga xam ne bëgg nañ yàlla lool waaye amuñ alal juñ joxe wala ñoom de am amuñ amuñ kàttan tànk yaa bañ wala bët ya ñooñu am nañ ngànt wala dañoo màgget fa nit ñi da dem di kër kër yi mënuñ faa dem ñooñu tamit am nañ daraja waaye ñooy seconde position ñetteelu position bi nag mooy ñi nga xam ne dañuy ngànt ngànt la waaye amuñ ngànt ñi ci kër gi. ñooñu ñoo ci gën a suufe dara ñooñu bu leen yàlla jéggalul sax nañu am problème moom lay wax ci aaya bi soo borom ne fadala xëppal na ca pay wala ca daraja allaahu yàlla mujaahidiina way nangoo jihaad yi bi am waalihim joxe seen alal wa anfusihim ñu joxe seen bopp alal xaayidina ci way toog yi nga xam ne dañoo toog waaye dañ am ngant ni ki Abdullahi bu Ummi Maktum bilaal la woon ci jumaa yi yonent yàlla Muhammad waaye gumbala woon daraja tan dégg daraja tan daraja heppal heppal heppal na yalla gënal na daraja tan daraja moy maqama mu kowe ci ñi nango jihad joxe seen bop ak seen alal ci ñi nga xamne dañu am ngànt demuñ waaye nag kullan kep ci ñom ñaar ñi nango joxe seen bop joxe seen alal ak ñi am mënu ñu dem yalla ne ñep wa hada dencal na allah yalla al usna pay gu rafet mu ñew ci ñettel mu ne wa fadala gënal na allahu yàlla mujahidin al mujahidina way nangoo jihaad yi alal xaayidina ci ñi toog te amuñ ngant ajaran pay xasimam gu mag darajaatin ay daraja minhu bu tukkee fa yàlla wa maxfiratan ak njégal wa rahmatan ak yërmande wa kaana nekk na allahu yàlla xabooran di ba bare bare xakoon bakkaar ñeel waliyu bi rahiman di yërëm xakoon way gëm ñi yàlla ah, ok ñetteeli position baa ngoog mooy ñi toog te amuñ ngànt ñi denc seen alal bañ koo joxe te amuñ ngànt yàlla nañ ñële xëppale nañ leen de waaye du nekk darajatan de darajatan bële mu mufrad la bii darajaatin jamoo la ay daraja yàlla mu ne yéen ñi toog te amu leen ngànt am ngeen gaa yi raw nañ leen ci maqaama yu bëree bëree bëri ba pare wa maxfiratan rawee nañ leen jéggalal yàlla ndax ñoom yàlla jéggal na leen te yéen yéen a ngi amee bakkaar yéen ñi bañ a dem wa rahmatan ak yërmande yàlla yërëm na leen ñoom nangoo jihaati joxe seen bopp te ñun amagu leen yërmande yàlla wa kaana laahu xafuuran rahima kon raw nañ leen kon yéen ñi bañ a dem raw nañ leen de hmm? kon yow mii yëngatu ci yàlla fas yéene li yàlla def ci sa loxo nga bokk ko ñu néew doole yi rawatina nit yàlla yi mu ne yow am nga daraja ju kowe ca maqaama yi ci pay yàlla ba waaye xëy yow mi toog dégg nga am alal bañ koo joxe wala nga am kàttan ba na yëngatu ci pays yàlla bañ bañ a yëngatu ci yàlla yow raw nañ la luñ la rawee njëggalal yàlla yërmande yàlla kon raw nañ la ci dara ñuy kowe kowe loolu mooy aaya bi ñi nekk wa kaana laahu xafuuran rahima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla Yahya dafa wax nitam ñu na leen yàlla digal na leen ngeen gëm yàlla moom daal ba leen ko bokkaale na ngeen di julli te nañ leen santeewoon yi doon ko jullee ñoom julli moom yàgg na bi xanaa wutee ni ñuy jullee rek ngeen di oor te nañ leen santeewoon ñuy oor ngeen di génne asaka wala sarax te ngeen di tudd yàlla kon yént yàlla yéex yaa juróom juróom yi ñu santoon moom tam ndeke juróom la ko yàlla joxoon montoor yi baax yi ñu bokk taay ñun lu ñu jox ñun sahaadataani mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah benn iqaami salaat ñaar julli waaw itaay sàkkaat joxe asaka ñett sawmu ramadaan xoor weeru koor aji baytullahi alharam haj màkk muy juróom lii mooy suñ piila yi ñun waaye moom mu ne yonent yàlla moom mu ne yëx yàlla lañ ko joxoon gëm yàlla wéetal ko julli xoor génne sarax ak tudd yàlla lii lañ ko santoon nitam ñi di ko def waaw yonent yàlla yooyaa di mi di misaalal nitam ñi gëm yàlla ak bañ koo bokkaale nu mel mu ne leen bokkaale katam yàlla daal xam ngeen nu melal mu ngi mel ni waa joo xam ne dafa jënd jaam jaam bi ci sa la nekk yaay yaay yaay kilifaam dégg nga nga yëkkati alal jox ko ne ko demal def business nga yiti profit bi moom bu demee jaay am profit dem jox ko sa noonu yow noonu sang bi mu ne bokkaay noonu la mel ah, yàllaa jox lépp say loxo say tànk ak bët loolu du loolu demal nga yëngatu delloo ci man ngay yëngatu da wan keneen ngay yëngatu da wan keneen waaw yooyu yaay ne gaaya bi noonu la bokkaale mel nga am sa jam ci kër ya ko mom ya ko yelif ya ko jël demal liggéeyal ma jëlal alal ji so amé profit nga isil ma su jaay am profit dem jox ko sa noni yow lol neex na ah, lol neexu di ken bëggul ko ci ñun waxuma jam sa way sa doom wala sa kat ni rek sa kat ni rek ci bitik bi mu jaay bu amé profit bu ngoonee mu sét non ba la gëna bañ mu jox la ko yow borom mu jox ko yow borom bitik lol neex ko gi du fa yag dang ko gaaw genn bitik bi de soxna sa ci kër gi yaa jox yaa ko jox dépense mu dem marché togg ba neex mu tànn ndawal ga la ca gën a baax mu def ko ci bool yekk ko yóbbul ko sa noon sa noon boo xam ne yow lay xeex guddeeg bëccëg mbaa soxna sos da ngeen dem yee waaw liñ bëggul ci suñ bopp nag yàlla bëggul ko ci boppam yàlla nañ ko bàyyee yàllaam gi hmm? te soo ko bëgg a bàyyee yàllaam gi niñ ko jàngee léegi rek joxe sa bopp joxe sa alal rek ndax moomoo ci dara moomoo sa bopp moomoo sa alal jox ko ko te jeexal ci da nga wax ne gaayam yi bokkaale ngóog baaxut waaw mu ne ma misaalal leen julli julli bul ko wan kenn wan ko yàlla rek mu ngi mel ni buur bi oola jox la audience may la audience may la chance pour nga dem gis ko président bi may la chance pour nga gis ko waaw nga dem ba ci renam toog wala nga nga tagg ko ak teranga jim la defal yeb nga dem ba ci ronam ngay tagg nonam yi opposition am yi <laughs> lolé xamna ko def president da nga fa gawa a president bi mayla oñas nga dem ba ci mom mu yëgati xay jox la nga set ci opposition yi ko ci gëna bañ diko tag nan ko baax la ko de mom rew do ko ñaaral la ci kon yow mi julli allahu akbar ba ci assalamu alaykum kenen koko wan ku dul rek jox nga ko noni jox ko yàlla moom rek ko moom ah Yaxya it mbër la di hmm? mu ne gaa yi ba tey ma jàngal leen weeru koor liñ leen sant kaaraange la seen digganteeg safar saw mu junnatu waaw pakku la lu lu lay xiir la ci nga dugg safar mu ne kon nag weeru koor mu ngi mel ni ki waajoo xam ne dafa am jaasi am fetal am mbubbi koŋ am lépp lu koy aar dégg nga pour mu iiroo ko ba nga xam ne noonu mi duñ ko mën dara mu dem jël bagage dem jox ko noonu jaasim jaag fetal gaag dégg nga lépp lu mu waroon a aaree boppam mu dem jox ko noonu mi loolu mooy ngay or di ko wan keneen ku dawul yàlla yàqalu la sa boppam ah kay mu ne sarax nag bi ma leen mu ngi mel ni kuñ japp ngay béel sa bop ngay jot sa bop manam waxtu wi nga genné sarax ya nga béel sa bop ci ay problème jafe-jafe yi waroon wacc ci sa kaw wala mu wacc ci sa njabot sarax bi ngay genné ak dimbalanté bi ngay dimbalanté nit ñi daf koy defee su ba yow moy la tuddu yalla nak mom mo ci gëna baax mom xam ngeen nu melal mu ngi mel ni nga kuy daw nonam ba dugg ci tataam dugg ci barab bo xam ne la yonent bi bi nee na yàlla nee na ku wax laa ilaaha illallaah dugg nga ci sama kaaraange samay 18 waaw dugg nga ci samay ettin xaar naa la téye naa la képp naa la man maa la téyal boppam laa ilaaha illallaah tudd yàlla mu waxtu boo koy def rek nu mu gën a bëree rek ngay gën a branché wu ci pays yàlla bi moo tax yonent bi saa daan na wax ne ana amartukum bi xamsin maa leen di dénk Euh, juróom mooy lan assamhu wa taaxa dégg ak topp wa hijratu wa jihaadu gàddaay ak nangoo jihaad wala soomul jamaati ak ngeen di xànd ci mbooloo yi bañ a beru beru baaxul ku beru mën ngaa beru dem saba hmm. mangook aaya bii dugg inna allazina tawafaahum almalaikatu سالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض waaw aaya bi wàcc na ci ñi nga xam ne dañoo mënoon a gàddaay jógee màkk ñoo fekk si yonent yàlla muhammadu waaye ñi lànk ne duñ ko def bi maana ñi nga xam ne dañoo mënoon a gàddaay bañ ne duñ gàddaay xam nga gàddaay ci njëlbeenu islaam dafa bokkoon ci sarta yi dëgëral iman gëm yàlla mooy boo gëmee yàlla te yaa ngi màkka da nga war a ñëw fekk si yonent yàlla mamun minin ñi nga xam ne nag dañoo bañoo dañoo mënoon a dem te demuñ amuñ benn ngànt ñooña di len de ñewale malaika yaa ngi leen di xass di len yedd naan len da ngeen waroon tuxu ba ngeen xamee ne mak gi ngeen nek man len fee toppatoo sen sen diina ta am ngeen kattan da ngeen waroon a dem fu ma ci diin kon li yalla di santane ci aya bi dal moy dem ak tay yeb ku nek ci barab mu war ne barab bi ma nek ni de nga sama diina da fe yaqo manuma fe toppatoo sama diina ni ma ko beugé mo xam ci compagnie gi la moo xam ci liggéeyukaay bu mu mën a doon moo xam ci dëkk bi la sax toxul nga dem foo xam ne danga ko mën a toppatooy sa diine loolu la yàlla ni santaan waaye nekk ci barab boo xam ne sa diine dafay yàqoo bés bu bët bu set yaa ngi xëy ci bàkkaar xëy ci sori yàlla gont ci sori yàlla nga nekk fa rek loolu óoru gàddaayal génn dem foo xam ne danga fa mën a toppatooy loolu la yàlla di jàngale ci aaya bi nga xam ne tawafaahu mu dana mu dana mu faat leen almalaikatu malaaka yi saalim yi ñi raway tooñ anfusihim seen bopp waaw tooñ seen bopp mooy mënoon nañoo gàddaay ñi bañ ne duñ gàddaay xaalu wax na leen ñoom malaaka yi na leen fii ma kuntum ci lan ngeen nekkoon lu leen tere woon gàddaay xaalu ñu tontu ne kon naa nekkoon nañ mustadaafiina di néew doole fil ardi ci suuf ñun daal dañ dañoo doole di lay xaalu malaayka yi ne leen bu fekkee da ngeen a néew doole ci ñemewu leen a feeñal seen imaan amu leen fu ngeen mën a toppatooy seen diine dégg nga alam tëkkul xanaa dafa nekk doon ardullaahi suuf si yàlla si waasi'atan di aji yaatu fa ba ngeen gàddaay fiihaa ci suuf si xanaa yàlla joxul leen hoon kattan suuf si yàlla si yaatu na ngeen gàddaay mën a toppatoo seen diina aaya bi dugal na képp kuy liggéey ci barab te man la faa julli man la fa def lu bax ñi wax nga nan man fii mënuma fay julle nanguñ ma julli nanguñ ma nangam loolu óorut yalla du jeex bako fa dem fo meuna top toye sa dina xamne bu julli jotee nga julli leg leg toujours nit nit kool ma di ma laaj yu mel noonu man fi ma nek dañu def ni dañu def na ta baaxu wala duma ma julli waxtu nangam nangam ma laaj ci nu def lo bëgg ñi la baax sa liggey bi nga dem torox aaya bi kay wax na lu def neena na len leen nga dem uti beneen liggéey hmm? nga dem uti beneen compagnie nga dem uti beneen dëkk fi nga nekk xam nga ne yaw sa diina du fi baaxee dëkk bi yëpp ay fokkat lañ dëkk bi jubluwuñ yàlla dëkk bi seen yoon nekku ci diina génnal dëkk bi nga dem foo mën a taxawalee sa daara taxawal sa njaboot jubale leen ci yàlla compagnie bi it noonu la met liggéeyukaay bi noonu la mel su la óoree ne fii gaa maa fi am xaalis de waaye dëgg dëgg dëgg diina nekkul fi waaw perte naa pay yàlla bi génnal nga dem feneen lii la aaya bi di wax kon ña ña malaaka yi fekkoon biir màkka ñi mën a génn nanguwu ñoo génn ñi ñemewu ñoo feñal seen gëm yàlla ñemewu ñoo julli ndax ñu ngi ci bitee béer toog ba dee ñëw malaaka yi ci liggéey nekkoon bay dee fii ci bitee béer yi ñu ne ah, dañ ne woon doole ñemewu ñoo a julli suñ julli woon gaa yi rey ñi malaaka yi lu leen tere woon a gàddaay xanaa suuf si yàlla si yaatuwul pour ngeen mën a gàddaay xanaa màkka rek moo fi nekk oh, alquran lu doy war dafay ànd ak nit ki ci ci jamono bu nekk nag suma borom ne fa ulaayka ñooñu bañoon ne duñ gàddaay te amoon nañ kàttan di nëbbu seen diina ba dee fekk leen fa maa waawum seen seen dëkkuwaay jahannama jahannamu jahannama la wa saat bon na masiran ci mujj jamono boba la jamono boba ndax lan boba gaday dafa nek bay fos ba nga wara gaday waye man day gemna muhammadu rek nek ci bir te yow lepp luñ santane mënoo ci def dara ndax ñi la wër bo ca dee wóorut de sama borom ne illa mustada'afina ndere way néew doole yi ñooñ boole wuñ leen ci abdullah ibn abbas ne man ak sama yaay ci lañ bok moy ñi nga xamne gem nañ waya seeni kilifa yi leen wër yépp dañ leen dañ leen dañ leen maanaam ñoom suñ génnoon tey bëgg dem sax mënuñoo xam yoon wala dañoo feebar amuñ tànk yuñ doxe wala ñu ngi gumba ay màggat lañ ñooñu ñëpp mën nañoo denc imaan bu boo lëggee yàlla fay leen ndax dañu am ngànt moo tax ñu gàddaay du bàyyi foos ci ñoom moo tax mu ne illaa illa al mustadafina ndere way néew doole yi min ar rijaali ci góor ñi wan nisaay ak ci jigéen ñi wal wildaani ak ci laa yastatiuuna mënuñ hil tan ak kattan ak laxas waaw mënuñoo laxas génn dëkk bi mënuñoo tukki wala yaxtaduuna mënuñoo gindeeku sabilan ci yoon de buñ génnoon sax duñ xam yoon wu ñoo jaar wa ulaayika ñooñu ñoom ansa war na allahu yàlla an yaxfoo ba baalat xanum ci ñoom ñooñu xaman na yàlla baal leen de wa kaana nekk na allahu yàlla xafoowan di balekat xafooran di jégalekat kon ki dara jotut mu bañ a gàddaay te mënta taxawal diinaam kooku moo ray boppam ci kéeféer waaye ñi ñi am ngànt nag mel ci góor ñaak jigéen ñaak xale ya màggat yaak ñu néew doole ñi nga xam ne mënuñ dara ñenn ñi seen bët yee dañoo dañoo gumba ñenn ñi amuñ tànk yuñ doxee ñooñu baaxalal nañ leen waaye loolu démb la de waaw loolu moo bi gàddaay nekkee bay foos waaye xam nga ne gàddaay ci jamono ji euh, duut by force ba des gàddaay bi dul jeex ndax gàddaay jógee màkka ñëw Medina fekk si yonent yàlla Muhammad loolu jeex na ci fatu makkati ci fatu makkati bañ ubbee màkka rek la loolu jeex waaye gàddaay du jeex jamono bu ne ci jaamab yàlla bi waaw gàddaay du jeex gàddaayal xéeféer walla def defkati lu bon yi nga dem seeti ñooy àndat ci lu baax gàddaayal grand place bii dama fa daan toog di waxtaan ñi ataaya waaye grand place bi daal la ñuy def neexul ma la ñuy wax neexul ma gàddaay leen dem ci beneen gàddaayal dëkk bi le dem xam ne man la fee toppatoo beneen dëkk gàddaayal bidaa dem ci sunna gàddaayal réer dem ci xam-xam gadayal ñu reer ñi dem and ak ñu xam ñi gadayal ñi nit yi àdduna yi dem ci jeex ca yàlla gadayal kon gaday du jeex gadayal bakkanu amaratu bi soyi ak lawama bi ak nafsul munhim bi nga dem ci mun ma kon gis nga ko ne gaday du jeex bam dess des bobu rek ñu doon jang moy joge makka ñoo medina lolu dir bobu la won rek waye kere bañ ubbee makka la gaday gogu jeex waye gaday du jeex mukk waxtu woo gàddaayee lu naqari yàlla dem ci lu neex yàlla rek gàddaay nga sama borom ne waman yuhaajir ku gàddaay na mu fi sabilillah ci yoonu yàlla yàlla rek la tax a gàddaay yajid dana mu fekk filar di ci suuf muraaxaman ay yoon yu bëri muraaxaman ay yoon kasiran yu bëri mooy fooy wëndeelu duut ne maanaam Euh, benn dëkk rek ka du wut benn compagnie bi rek ka xam ak yaatu warsak soo gàddaayee di nga am ci sa gàddaay gi jubluwaay yu bari foo xam ne mën nga faa jublu te itam yàlla dina la ubbil bunti warsak yi muraqaman kasiran kasiran wa <coughs> mu ngoog kon sadaqallahu alazim wa balaqa rasuluhu nabi mustafa alkarim wa naana ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ashahidin sax bàyyi woon nañu ne time bi jeex na mu nga su ko defee ñi yeewal foofu dinañ door ak yow man yuhaajir fi sabilillah waaw beneen yoon te mooy ku gàddaay ci yoonu yàlla wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman kasiran wa saatan insha allahu waaye loolu dafay nekk nag altine mooy londi ji ñëw monde nga xam ne ajjuma ji ak samedi ji ak dimanche ji programme bi duy am waaye londi muy altine monde dinañ fi dellu si waat ànd ak yéen incha allahu yan nañ ko fekkee yan nañ ko tal one zero seven six one zero seven six ci yéen ñi bëgg a ànd ak ñun programme bi bismillah bismillah allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa waaleykum salaam wa rahmatullah naam ah, lay delloo ziar bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ah, jërëjëf yow kan laa fooy woote ah, jërëjëf jërëjëf amiin yaa rabbi amiin amiin

هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله